waa tey dañ ñëwoon pour euh, fêter de de manière symbolique la premier mai comme ni ngeen ko xamee depuis euh, pandémie bi du Covid 19 ñoo ngi koy fêter mais de façon symbolique ñoo ngi koy fêter mais de façon symbolique moo tax te ñu ñëwoon doon ko fêter comme euh, de façon symbolique ak par rapport à la Covid 19. voilà exactement doléance yu ñu am dañoo bëggoon pour ñu yokk salaire suñu fay bi fay salaire u employé yi parce que dund bi léegi cher na surtout logement bi parce que pour am logement fii Dakar dafa metti logement yi chair na bëgg nañ tamit euh, li ñu waxante woon euh, ci cadre accord yu ñu waxante woon ci cadre liggéey bi tamit ñu respecté ko ak tamit am na ñoo xamante ni dañ leen a dàqoon am ñoo xamante ni dañ leen a wàññi woon pour ñu xoolaat seen cas parce que ba Covid bi ñëwee dañu waxoon nii duñu dàq kenn duñu wàññi kenn